salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi topp Lansar ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax mbokk yow mi aboné gul ñu ngi lay ñaan nga aboné waaye ñu ngi lay ñaan ngay aimé vidéo yi ndax loolu dina ci am solo lool. tey dañuy ñëw ak yéen ci saar bii di suuratul yaasin yaasin mooy xolu alxuraan yaasin di saar bu barkeel. waaye di saar mu bëri njëriñ tamit mbokk tey dañ lay jox benn secret boo xam ne nekk na ci suuratu yaasin suuratu yaasin saa yoo amee soxla muy soxla bu mu mënti doon boo jàngee suuratu yaasin yaasin wal quraanil hakiim innaka la min al mursaliin ala siraatin mustaqim tanziil al aziiz ar rahiim لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغصيناهم فهم لا يبصرون امني جانج سدا امني جانج سدا وي ñuy jàng sudda waaye jàngal suuratul yaasin ba yegg ci mubiinun boo yeggee ci mubiinun nga daal di koy baamtu ci lu ci cent deux fois muy téeméer téeméer ak ñaar muy cent deux fois maam booy jàng suuratul yaasin saa yoo yeggee ci mubiinun da nga koy baamu cent deux fois bu yaasin bi yeggee nag إيه، باتي إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون غنا دي نيان تسوخلا إن شاء الله بنيه نيهي يالا أجو بو منتي أم بوكا دفي يالا دينوكو إن شاء الله سيكاتون يالا مولين دي جاجة فل بو باخا باخا باخا باخا وإنك بوديك الخمس نك باخنا ولا Euh, dimanche yu guddi muy guddeeg altine incha allah wala bisu àjjuma ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jaa ngeen jëf.